سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن قد المكتوم تاج العارفين غوث السمداني أبي العباس أحمد التيجاني وعن قطب الكابل والولي الكامل القليفة الحاج محمد ابن الحاج عبد الله يس وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكتب الله عليه وسلم ينجلد نيكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خمنا لبنو قدل نخ قدلنا بنوك بجي قلوب باخت لو خمنا ني واخ من كفيت واخو لكو ورا الموي كدان تخو في لتخوي دي, moom yàlla dogal ñëwul tey waaye kooku moo ko yeyoo muy Seydina Ndiaye moo daan taxaw fii macha allah di taxawee liggéey bi moo tax tey biñ ñu ko santee xëy na dana diis waaye ñu dimbali koo kattanu yàlla ak yonente bi ak mbaaxa maam xalifatul xaaji Muhammad mi fi tax a dajaloo ci takkusaan gi su ko defee nag xam naa ne dañuy ñëw rek wax li nga xam ne nii programme bi noonu lañ ko tëre gannaaw ba nga xamee ne nii ñu bari ci sunu sëriñ su baax si daan teew fii tey yàlla dogal nañu am ngant ngant loo xam ne itam wax dëgg yàlla boobu nii benn la rek ndax ñoom bu fekkee ne nii ñi ngi taxawal bis bu toll nii ci dàq seen dag leen ko maam xalifatul xaaji muhammad te ñoom gisuleen leen fi kon dañoo dem ci lu mel nii rek lan dem loolu moo waral seen ñàkk a teew te it dafa am ci loo xam ne nag wax dëgg yàlla ñoo ngi jëm mag am na ci yoo xam ne nii day metti ci ñoom fanaan ci programme mu Serigne As Khalifa wax dëgg yàlla xëy bëgg a jëlaat oto ñëw ba fii bëgg a toogaat ba 23h wala 22h loolu metti na nag moo tax ñu su fekkoon ne nii kenn rek lan fi yabal koo xam ne nii moo jógee ci xabara ba ñun doyloo nañ kooku dañuy daran doyloo itam toog déglu ko lum ñu wax ci maam xalifatul xaaji muhammad it daran doyloo loolu kon loolu moo tax sëriñ as xalifa ahmad babacar ahmad jaw ñoom ñépp ren wax dëgg yàlla ñu am ngant waaye seen xel ak seen bëgg-bëgg mooy teere woon jataay bii waaye loolu la yàlla dogal suko defé ñu contant bu baax ma sha allah waye sëñ Omar ngi ni ma sha allah ah nga xamné ñun li ñu am dafa yombul am am am sa say say sëriñ ñu lay waxtaanal di wayal lolu yombul ñu bari amuñ ko sëñ Omar ngi ni ma sha allah xamna naa ne bu ci kanamee da na gëna dugg bu baaxa baaxa baax ci ci ci way suko defé ko defee fa tabaarakallahu ah niñ ko waxé dañu bëgg rek. ah waxtaa wax li nga xam ne nii moom la tëral pour bëgg programme bi doxe noonu bi ci njëkk mooy comme niñ ko xamee ci programme ñeseen ak kër maam xalifatu xaaji Muhammad jataay bu ñuy tàmbali ñu commencé ko ubbee ko aayaati alquran buñ ko ubbee ak aaya alquran ba noppi te ko ki ñu bëgg mu defal ñu ko mooy seriñ Jibi Seen moom moom jole mu waaj su noppee ci alquran jooju ba noppi ñu jox imaam nga xamne moy imam moy mooy sunu imaam di muqaddamu maam xalifatul haji muhammad fi ci dank sen mu ngi ni di agsi moy imam babakar sen turongo turondoo mam babakar Niass su ko defé mom mu ubbi ñaan su ko defé ñaan gi nga xamne moy mooy ubbi jataay bi su noppé ñu dox Serigne Madické ngaan borom dëkk mu dalal gam ñi su noppé ñu jox monsieur le maire nga xamne mom mo fi téwal walu nguur gi wàllu administration moom moo ko fi jiite su noppee ñu jox ah, oustaz ah, Serigne ah, ibnu Papa Niass su ko defee mooy njëkk waaw kon ñun dañoo tudd nii waaye waaw kay Cheikh mu ne imaam mooy njëkk imaam Hassan mooy njëkk su kon ñu jox Serigne Cheikh Serigne ñu leen xamal la it ah Sëriñ Sidi Ñas ibnu Alxaaji Bakar ak si na fi léegi moo moom mooy mooy tëj jataay bi incha allahu bu waxtaankat yi waxtaanee ba noppi moom moom mooy tëj jataay bi mooy ñaanal taalibe yi tëj jataay bi mu daal di jeex su ko defee bu ñu joxee imam Ahsan bu waxtaanee ba pare ñu jox Serigne Cheikh su waxtaanee ba noppi nag danan jox ki nga xam ne nii. moom la ñu payaneel bis bi tey muy dooroon taaliba maam xalifatul xaaji Muhammad wax nañ ci tey lañ cay wax lu bari tey bañ demee ca kër ga waaye danañ jox kenn ci ak njabootam Mouhamadul Amin wala ku man di doon ñu ñëw soxna Safiyatu mi ngi nii toog doonoon soxnaam macha allah su ko defee ñoom ñu wax seen gis-gis ak tudde gi leen tuddee bis bi danañ wax ñoom danañ wax su ko defee suñ ñoppee waxoon nañ ne nag li ñu waxoon mooy ñu dugal oustaz Babacar waaye boobu dañ ne wax dañoo bëggoon booba ñu def ko rek nga xamne ni nii dañ koy def avant ñu jiru timis waye yàlla dogal xat-xat yi am ba oustad babakar su fekkee ni nii temps bi man maye na ko hit ñu dugal ko oustaz Babacar seen mom jole ma sha allah di borom xam-xam su ko defee loolu lañ tëralee programme bi dal su fekkee ni am lu ci dëggit wala luñ ci wara changer ngeen wax ñu ko ndax ñun ci seen bëgg-bëgg ak seen ndigal ci la ñuy wéy yéenay suñuy sëriñ yéenay suñu lépp lu ngeen doxale ak lu ngeen wax baax na kon loolu lañ ko bëgg a doxale kon li ñuy wax mooy sëriñ ji bi dafa bal su ko defee mu indil ñu ay ayaati alquran su ko defee imam mu waaj moom itam bu noppee bismillah qaala rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الصميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا خلال الدار وكان وعدا مفعولا ثم وجدنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم سنو كليفة يتقي ينغا نيو جوغي تشا بارابو تيادبا موي بارابو خليفة الحاج محمد di barabu alxaaji Abdullahi Niass ak njabootam nee na ñu ngi jiital di leen ziyaara di leen balu xaq di massawu coono yi nga xam ne moom la ñu jànkonteel jóg ak moom foofa baag fii mu ne kon loolu ñu ngi leen ciy sant di ci gërëm. di sant wa dekk bi ak wa tund yeb ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant itam suñu njaboot yi nga xamne ño taxaw ba jëmmal bis bi tay tudde ko takkusaanu wa Khalifa neena kon ñoño hitam ñi ngi leen di sant di leen gërëm tur wi ñu tuddee itam daayira bi muy tur wu am solo ñu ngi ñaan ci yàlla ci kattanam ak yërmandeem mu defal ñu xéewal daqal ñu njàqare daqal ñu jafe-jafe daqal ñu lépp loo xam ne dafay lore ci dëkk bi ci tund wi ak ci Sénégal yëpp defal ñu ay jàpp ndal defal ñu ay xéewal loolu yàlla ñu ko yàlla defal te yaakaar ne ne loolu mooy turu daayira bi te mooy kashful xumma kon nag yàlla nañu ko yàlla defal di sant itam suñu jigéen ñi ñu leen di sant bu baax rawatina ki nga xam ne ki nga xam ne mooy sunu yaay ngoone Faye wax na ne su toogee fii doonte ñaari kaddu dana ko ko sant gërëm ko ko ndax moom lay jigéen la joo xam ne la mag ña daan wax jigéen daan na góor ca tool baayam moom Ngoné Faye moom la ndax daayire bii mu bokk ko mbokki jigéenam yi waa dëkk bi mu ciy sonn bu bis bi jàllee mu tàmbaliwaat di jëmale déwén di ci sonn ba bis bay jël si waat du tay du sonn du xaddi du mer du gert te xam ngeen ne jiite mbooloo lu jafee jafe jafe la rawatina mbooloom jigéen lu ne da nga ko dégg boo yomboo mer wala nga yomba gedd doo dem fenn danga nga cay daal di génn waaye moom du mer du gedd du toqi du tàyyi bërki démb bu mu leen rombee fii ñuy waxtaan ba noppi def seeni waxtaan yëpp ba mu rafet muy dégg ñuy wax ne dajale nan fii juróom-ñaar fukki junni ndax loolu góor ñi mën nañ ko ñoom jigéen ñi ci takkusaan gi dajale nan juróom-ñaar fukki junni man lii ma àndoon moom démb dem Touba heure bii ak seegul ndànk te ndékkeewul ndànk ñu nekk Touba macha allah yor xaalis bu bari di ko ndugg di ko ndugg ba mu yegg ñu àndaat ñëw billahi lesi jàmbaar la te dus ne on léeg-léeg sax damay dem ba xaw koo ndax ndax bu dee yàgg ngeen fa yàgg waaye rek lépp rek ba mu baax lu ne mu ne fàtte na nangam dem jëndi ñëwaat dem jëndiwaat ñëwaat dem jëndiwaat ba bi ñuy si yaakaar naa tuuti kon 19 jot waaw loolu lépp def na ko ci daayira bi sunu yaay mboolee fay yal na ko yàlla fay bi jaay Seydina Muhammad cofeel ku mu am ci maam Khalifa yàlla na ko yàlla fay bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngoog na saraa naa ko li li ci des xel àggale na ko ginnaaw moom itam groupe bi àndoon ak moom ñuy dajale seeni xaalis saa buñ leen wooyee ñu wuy si joxe ay natt joxe ay hadiya def luñ man ba ànd ak moom dajalul toll noonu ñoom ñëpp ñoo ngi leen di boole ak Ngoné Faye di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fan wu gudd ak wér ak wërsëg bu baree baree bari yàlla na yàlla defal leen ko daayira bi yàlla bu ci cat duggul yàlla bu ci cat duggul suñu jigéen ñi yàlla na yàlla barkeel leen yàlla yàlla barkeel leen ci daraja yonent bi barke xalifatul xaaji Muhammad barke si jiidi Ahmad Tijaani yàlla na ko yàlla nangu. ñi ngi sant dëkk bi yëpp di gërëm ñëpp nag di kontaan itam di kontaan itam ci ki ñu ko tudde tey muy Baye Ousseynou Sène mu nekkoon suñu baay nekkoon suñu xarit lool ba àgg ci lool bëggoon lu baax bëgg alquran bëgg Seyyid Ahmad Tijaani yàlla yàlla yokk leeram barkeel njabootam ñi fi bàyyi yàlla yàlla def barke ci ñoom muy soxna nday di seen jarbaatu lenqe ay doomam di suñuy sët ñoom itam ñu nekk jàmbaar lool góorgóorlu ci bis bi def ci alal yu bëree bëri yoo xam ne moom bett na ko sax ñoom itam yal na yàlla barkeel leen barkeel jullit yëpp ñi ngi sant ñëpp. mu ne dëkk yi bu ñu bu ñu limee ni ko wolof di waxee dañuy juum waaye mën naa wax ne dëkk yépp a ngi fi soppe xarit yi li daa leen joxob loo ba wookaan dëkk yooyu yépp ñu ngi fi dëkk bi itam macha allah ñu bare gi kon yalla yalla fay ñu yalla yalla fay len yalla yalla deugural ñu xalé yalla yalla dimbalé len xalé yeen xalé yi goor yi tak na jigen ñi waye yeen it bayyi wulen ay jambar ngeen nangu ngeena son nangu ngeena joxe sen alal kon ñi ngi len di ñaanal yalla ñu dem ci karam ca baña delu ginaaw yalla yalla dimbali len ubbil ñu ay xéewal yu yaatoo yaatu ba li ñu bëgg ci dëkk bi ak tariqa bi ak diine ji ak yàlla may ñu lépp ñu mën koo def ñu ñaanaale itam xale yu nekk bitim réew nga xam ne toujours ñi ngi jokkoo ak ñoom ñoo bokk pas-pas bokk lépp bu leen lim sax waaye ñoom ñëpp ñoom ñoom ñëpp seen loxo. mi ngi ci biir kenn ku ne fa nga ne muy Amérique France Italie Afrique du Sud Brésil Argentine ñoom ñëpp yónnee na ñëpp a yónnee ñoom ñëpp kon ñoom itam fàttewuñ leen di ñaana ñi ci des ñëpp ñi ci dëkk bi ñëpp bàyyiwul kenn ñi ko féete woon daaw waaw waa kër Baye Abdou ak daaw jéeg waa kër Mama ñoom ñëpp fàttewuñ leen ku ci nekk jàmbaar nga def nga fi loo xam ne macha allah yàlla yàlla nangu yàlla guddal fan yi barkeel wërsëg yi yaatoo ko bu baax ci doon jàng alquran xale yi jàng alquran yàlla yàlla barkeel leen yàlla yàlla barkeel seen alquran defal leen ndàmbalaay xam-xam. su ko defee li ci des sëriñ si ñu ngi leen di sas ngeen ñaanal ñooñu bu baax ñaanu xaas daara ji nga xam ne te tegoon nañu xeer wi ngeen ñaanal ñu ñaani xaas yu gaaw mooy daara ji ak kër maam xalifa gi yoo xam ne dañ ko mën a daal di tàmbali mool na ñetti ton ñu bëgg koo yëkkati xale yi mañ fay jànge ba xale yi mu commencé njàng bi loolu daal bokk na ci yitte ji bu taxawee rek bu soobee yàlla lu ñu bëgg daañu ko am damay alquran ak xam-xam kon ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm xamaa bu ñu ko toppee dañuy yóbbu temps bi ne kon danañ gën a yaatal cant yi waaye nag waaye junj doy na borom xel loolu bi ko wax. waaye kum sant rek kum tudd yóbbaale la ña ca des ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di leen balu xaq di leen bal xaq tey dañoo xaw a soj